Last thing was to last to me demo. Uh, look at your curl like this, you get tired. Woo! yeah asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu wér man la seen mbokku patriote sénégalais et compatriote Mollah Morgun maa leen di bëggee yéen a ngi si jàmm jaajëf faay bon euh, ñuy waxtaan vite fait ah parce xam naa guddi na quoi mais juste euh, live bi ma ko def pour réconforter rek euh, les patriotes. les Sénégalais qui sont au niveau de la France, de Paris, Montpellier, Toulouse, Le Mans, Marseille, Grenoble, etc., etc., que suba ki ngeen doon woowee dictateur ki ngeen di woowee criminel ñëpp di ko woowee criminel di ko woowee dictateur di ko woowee tueur di ko woowee assassin muy taftantalu turam donc suba da leen di siyaar si daf leen di seet si yéen waa France yaakaar naa ni nag euh, wure ba wër na këng waxi mag dem dem tàlli lu waaye doon jaay tey mu lamb donc suba affaire yi war na leer bépp sénégalais buy xeex injustice di xeex euh, tueur yi nga xam ni moo am doomu aadama yi ñu rey ak ñiñ tëj ci kaso yi ak euh, ni ñuy def ni ñuy toroxale sénégalais yi suba nag mooy bés bi nga xam ni ba ngay ñaxtu ak a mettitlu te nga xam ne gisoo waa ji suba nag vraiment bépp citoyen sénégalais bu nekk France lépp loo jàppoon war nga ko bàyyi parce que suba mooy seen tabaski suba les sénégalais épris de justice suba mooy seen tabaski ngeen génn naqarlu li am Sénégal rey yi am Sénégal injustice bu am Sénégal impunité bu am Sénégal yaakaar naa ni suba nag kenn warul toog këram kenn warul dem fenn fu dul jubali direct fi nga xam ni mooy fi Macky Sall war a dal ngeen def fa un million de sénégalais nekk fa un million ou deux millions de sénégalais vraiment wax ji loolu mun naa régler lu bare bare bare waxuma nag cent personnes waxuma cent cinquante personnes waxuma vingt cinq waxuma loolu dama ne France communauté sénégalaise bi foo la ëppee ci àdduna fa la ëppee onku boo leen matee cinq cent mille huit cent mille un million de sénégalais rek ça peut beaucoup mun na changer lu bare bare bare bare bare ci lutte bi mun na indi beneen tournure ci lutte bi donc ñi ngi woo bépp sénégalais bu nekk France ak fépp foo mun a ne boo munee jël métro nga jël métro boo munee jël bus nga jël bus boo munee jël train nga jël train boo munee jël TGV nga jël TGV et cetera et cetera ñun ñëpp ñëpp rencontré wu dajaloo ca Paris incha allah parce que suba la Macky di jógee Portugal euh, di wàcc si foofu noonu nga xam ne moom mooy France ca Paris donc euh, di leen fàttali loolu rek suba am ngeen mission yéen waa France suba nag la ñuy xam ba xam wax ay waxi kese la woon wala li ngeen di wax li ngeen di dund la li ngeen gëm la loo xam ni jar na leen bàyyi lépp parce que rey yi ñuy rey sénégalais yi toroxal gaañ sénégalais yi impunité bi injustice bi et cetera et di ngeen génn nag massivement massivement je dis bien pour dem gàttandu ji seen président criminel tueur assassin dictateur buñ jógee ci loolu euh, gars yi ñetti fan yi xawoon naa raar parce que c'est normal <laughs> euh, fu ñuy dóor a metti Euh, bu ñu annoncé opération rëbb dëmm bi rek boo leen fàttali ko samedi laa waroon def opération rëbb dëmm samedi def naa benn live le matin vite fait bu ma doogee yeewu wax ci affaire wu euh, maître Ngagne Demba jox ko samay conseil en tant que frère patriote ba ma ca pare itam ci saase annoncé naa opération rëbb dëmm dëmb moom ba euh, samedi bi dajale woon naa bagage ci saf sàpp ci opération rëbb dëmm bi mais il s'est trouvé que xam naa parce que wax nañ ma ko Facebook wax na ma ko dafa am kenn ku nekk Sénégal ku doon jéem a dugg ci sama compte léegi nag bu muy jéem dugg ci compte bi am benn code bu ñu ko yónnee te code bi sama numéro fa ne donc ñi yónnee ma code bi ne ma am na kuy jéem a dugg sa biir euh, compte Facebook yónnee ma code bi donc bu ma dugalee code bi aussi Facebook dafa ma génne man tamit carrément donc dafa ma bloqué ne ma ma dugal sama carte d'identité wala sama passeport wala sama permis pour mu mun a vérifier est-ce que man maa moom compte bi loolu moo tax samedi bi am amul opération rëbb dëmm parce que dañu restreindre sama compte bi nii sama Facebook bi moo tax opération rëbb dëmm amul samedi bi mais tout est réglé parce que maa ngi nii di live léegi loolu war na nii rek on n'arrête pas la mer avec ses man nag moom je suis super déterminé man man góob ma ni doomu aadama war na ma mën a arrêté man loolu loolu lu ma gëm la ko lu ma gëm la lu ànd ak conviction la dama gëm ni yàlla mënu ma bind bind doomu aadama doomu aadama boobu bugg maa arrêté ci ay pexem wala ci làmmiñam wala ci ay mbiram <laughs> man bu ma loolu mun loolu laa mënul nangu doomu aadama du ma mystique ba ma taxaw doomu aadama du ma wax ba ma noppi doomu aadama du ma menacé ba ma daw doomu aadama du wax ba ma arrêté man gëwuma loolu parce que man dama gëm ni doomu aadama bi ancien spermatozoïde futur cadavre la may ancien spermatozoïde futur cadavre doomu aadama boobu bugg maa pexeel ay pexeem ba bam ba mu <laughs> ma man may daw wala may bàyyi wala may démissionner wala may taxaw non loolu moom man mënuma ko gëm moo tax ma ne la Sénégal bokk naa ci ñi ci gën a dëgër bopp amul doomu aadama yaay jurógu fa doom bu mu mun a arrêté gisuma ko du Macky Sall du ay policier du ay ministre am du ay ministre maire am du ay député amul kenn koo xam ne yaay bind na ni yaay jur na fa doomu aadama bu ma bu am pexe bu ma mun a arrêté gisuma loolu bés bu may taxaw yàlla may arrêté mais du doomu du doom du jaar ci doomu aadama parce que conviction bu ma àndal la abnégation bi ma àndal la dama gëm ni man li may def dama ko gëm pexey doomu aadama mënuma taxawloo te loolu moo nekk tamit ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moo tax ma ma gëm ko moo tax ma am fu ma ko teg parce que ma gëm ni ko am conviction la mais nag gars yi Ousmane Sonko l'affaire Ousmane Sonko là mais il faut la régler sama gars yi l'affaire Ousmane Sonko mu ngi mu ngi perdurer ah mi ngi perdurer de ku ci nekk ci yéen xalaatal papay jàmbur Ousmane Sonko papa am na ay doom amul ci benn amul ci ñaar amul ci ñett am na ay doom am ñaari soxna nekk ci biir kër ñu tëj ko fa presque bientôt deux semaine deux semaines nga jël papay jàmbur bu am ay soxla di ko dox xool leen ko ci yéen rek am ay soxla war ko dox am nu mu war a lijjanti am yi mbokk am yaay buy dund yaayam bu nekk mag muy nekk maire maire de Ziguinchor war a dem lijjanti Ziguinchor munu dem munul dugg munul dugg munul génn mais loolu sama gars yi tamit war nañ mën a lijjanti problème boobu de loolu c'est un sérieux problème loolu problème gënu ko rëy doomu aadama magum jëmm am ay jabar yore njabootam nekk maire de Ziguinchor sa yaay di dund nekk Ziguinchor nga am ay frères yuy dundu nga am ay mbokk nga am ay dëkkandoo mais ñu tëj la ci ab kër mënoo fa génn mais loolu bu dul kaso lan la kaso gënu ko metti man gaw ma ni am na kaso bu gën a metti bu Ousmane Sonko di dund gaw ma ko amul téléphone amul ordinateur munul dem munul dëkk munul wax ak doomu aat même jabaram yi dañoo nangu seen téléphone yi même jabaram yi kër Ousmane Sonko kenn mënu leen jot kenn mënul jot kër Ousmane Sonko ña nga fa ña nga fa kenn mënu leen jot am na ñuy wax sax vidéo bu mujj bi vidéo euh, bu weesu la du bii nii du bu bees bees bees bees yi vidéo jamonoy mambay ñaa la bu ñu bu ñu bu ñu tëjee kër gi ñuy wax naan vidéo ba gis naa ñuy débattre ne sax vidéo tey tey tey bu à chaud mais kër Ousmane Sonko ay soxnaam parce que man am na ñoo xam ne xam naa leen ay xaritu soxnaam lañ ñu ñu yu yu màggandoo ak ñoom yu màggandoo ak ñoom wan nañ ba wan ma ay message yu mujjee ñu le 3 juin la ay soxnaay Ousmane Sonko gëj a envoyé mën a envoyé nit message ñoo xam ne ay mbokk ay mbokk soxnaay Ousmane Sonko yu ñëw di ma jot nii di ma génneel ay affaire dama sa gëj nañ jot seen i mbokk ñoom gëj nañ jot sax seen seen seen seen doom gëj nañ jot seen cousine jot nañ gëj nañ jot seen i sœur même naa laa la xam Ousmane Sonko de ay soxnaam si boppam seeni mbokk a ngi joytu mënuñu jot seen doom yi te ñooñu sëy rek lañ ci am politique ñu politique anul ñun nangu sax ñooñu sa sa bopp sax ñooñu mënatuñ communiquer benn jabaru Ousmane Sonko kenn ñi mu taxaw Sénégal ne mi ngi communiquer benn soxnaay Ousmane Sonko du seeni yaay du seen i papa du seeni i frère du seen i sœur du seen i mbokk mais c'est inadmissible ci ci benn kër buñ jël tegeeku ko nële bu nekk biir Sénégal bokkutul biir Sénégal ñu dagg ko au reste du monde ñu couper ko au reste du dund ak i soxnaam ak i doomam même ay doomam jàngetuñu parce que nee naa leen am naa benn cousine boo xam ne Seydou Nourou Tall lay jàngi xaritu doomu Ousmane Sonko la ñoo bokk benn classe di jàngandoo nekk ay gaañ nee na bu ñu tëjee papaam foofu ba léegi mënul doom ji ñëwul école mënuñu ko jot xale yi sax Seydou Nourou Tall ñi ngi doon noonu pour na seen seen seen euh, élève boobu noonu na ñëw jàngi si même xale yi ndaw yi ngi gr nga xale yi Seydou Nourou Tall sax ñu ngi grève au du wax ne nañ leen jox doomu Ousmane Sonko mu ñëw jàng mais gars yi sama gars yi loolu tam c' est problème de ku ko waxul tamit da nga da nga da nga ragal c' est problème Ousmane Sonko est emprisonné chez lui il est isolé Sénégal toog biir këram ak i njabootam munul woote jabaram munutul woote. même xanaa bu fekkoon si c'est possible sax jabaram nanguñ ca ay téléphone ay soxnaam sax kon mun na connecté ak ñoom kenn mënul dugg kenn mënul dikk même ku ñuy wax naan mu ngi dugg di dikk mais bu ñëwee dañ koy palpé du yor téléphone du yor dara mais c'est inadmissible gars yi samedi dimanche bi la ñu waxoon ne dañuy dem kër Ousmane Sonko pour libérer ji ko ça c'est tombé à nañ dimanche bi mais quand même encore plus de détermination leer loolu rek moo fi manqué détermination jamono ji moo manqué bu dee nag tabaski bi boo leen jàpp ba kenn mënatul amatul benn détermination ñëpp ci xar yi lañ lañ lañ concentré wu ñu wax ko mais <laughs> li Ousmane soo di dund métti na de ku ko waxul la nga ragal li muy dund métti na njabootam li muy dund métti na ay jabaram kii non absolument rien à voir ñoom sax dañ leen tëj ci biir kaso yi soxnaam yi mënuñu dem liggéey seen i business mi ngi taxaw ñaari soxnaam yëpp demuñu seen kër yaay demuñu seen kër papa yi demuñu seen seen mbokk yi seen business mi ngi taxaw liggéey tuñu ay doomam nekk ci biir kër gi tëj ko Ousmane Sonko ñu tëj ko mais sama gars yi mais xanaa loolu sax même sénégalais war nañ mën a booloo génn dem xeex loolu injustice mënu ko rëy gën a rëy injustice mënu gën a rëy lu Ousmane ko di dund c'est incroyable c'est inadmissible mais Sénégal amul benn jàmbaar benn góor benn góor wala jigéen fàqtadi ñu mun a dem libérer Ousmane Sonko wala ñu mun a dem sax ne waaw même bu dee Ousmane Sonko mais génne leen jabaram yi jabaram yi dañ am droit seen téléphone defuñu kenn lenn defuñu kenn lenn jabaram yi sax génn ay doomam dem jàngi quand mi ngi bëgg ëpp de saa yi dem toog mi nañu lijjanti loolu wax nañ taxawaay nañ ci def ay communauté nañ comité nañ waxtaan nañ waxaan seen biir nañ ci def ay group nañ xool nan la ñuy def stratégie pour dem mun a dem def benn attaque bu bu frontale bu doy waar pour mun a libérer le soldat Ousmane Sonko et sa famille. on parle plus maintenant de Ousmane Sonko et sa famille de libérer Ousmane Sonko de libérer ses enfants ñu dem jàng ci école yi de libérer ses ses jox leen seeni i portable jox leen seen i matériel yu ñu mun a communiquer ak di communiquer seen ak seen i seen euh, seen i mbokk dëggal di communiquer seen i mbokk seen papa ak seen i yaay cetera loolu vraiment c' est une nécessité jamono ji moom c' est une nécessité waaw ça mais li Ousmane Sonko di dund man gisuma lu ko gën a metti man gisuma ko damay toog sax di waxtu naan tey bu doon man la dajji naa dañ may rey kon heure bi dégg nga ni xeex naa fa damm nañ ma war a rey naa leen war a rey nañ ma mais kenn du dëkk nekk sama kër wër sama kër sama jabar du génn samay jabar duñ génn samay doom duñ jàngi samay jabar duñ liggéey du amul dara dara dara ñu tëj ñu ci biir kër comme mais comme <laughs> c'est quoi Macky Sall di dox ay soxlaam ay mbokkam di dox ay soxlaam ay soxnaam di dox soxlaam ay njabootam di dox soxlaam mais mu tëj benn doomu aadama ci biir kër euh, barricade ko toog mais mi ngi ça fait deux semaines ça fait plus de deux semaines <laughs> wala ñun dañuy toog ba trois semaines quatre semaines un mois deux mois ku nekk war nga seetu ci sa bopp xam ni sa waay yenn nii vraiment nit waru mun a dund di ko seetaan waru mun a dund di ko seet li am nii amul lu ko gën a catastrophique war nañ ci mun a taxaw nag war nañ ci mën a taxaw farlu ci benn yoon libéré ko avant la tabaski parce que Ousmane Sonko a besoin de de la de passer la tabaski ah peut-être chez sa chez sa maman à à Ziguinchor sa maman tam namm na doomam quoi yaayam tam bugg na dégg ci doomam ci lu mu nekk xanaa yaayam ci boppam bëgg na dégg ci lu doomam ci lu mu nekk bëgg na ko jot téléphone bëgg na wax ak moom moom tam Ousmane war na mun a xam war mun a sax xam yaayam ci lu mu ne ba xam mbaam mi ngi ci jàmm jëm na mag ci di ko nemmeeku comme nu mu ko doon nemmeeku parce que Ousmane Sonko même si ngeen soor saa yu yeewoon day dem seeti yaayam balaa dem fenn ci day dem seeti yaayam mais depuis léegi mu def trois semaines ñu tëj benn waay ci biir kër avant le premier tey la ñaata tey la vingt mais c'est inadmissible Ousmane Sonko bu ñu ko jëlee ci ci yoon ba Kolda boobu noonu euh, Kaffrine ba indi ko ba léegi le bu leen fàtte avant le premier la le vingt huit ou le vingt sept quelque chose comme ça ba suñu jonn yàlla tey ba le vingt Ousmane Sonko mënul génn këram mënul discours mënul wax yorul téléphone yorul portable yorul machine ay soxnaam yoratuñ téléphone depuis le trois ji nga nangu seen téléphone ya kenn mënu ko def fenn ci lenn donc plus de vingt deux vingt trois jours Ousmane Sonko ñu ngi ko tëj biir këram noonu lañ koy def du xanaa duñ seetaan noonu wala dañ bëgg dem dañoo fas yéene dem lijjanti sañu tabaski bàyyi ko moom mu souffrir foofu avec sa famille mourir en silence isolé au reste du monde loolu loolu lañ fas yéene def quand même justice bu amul cib réew sénégalais yi ñoo war a doon justice justice bu amul cib réew citoyen yi ñooy ñooy ñooy ñooy def justice parce que justice amul Sénégal kenn waxatul loolu kenn mënul défendre justice justice amul Sénégal Sénégal ngay gis ñu jël ay commissaire laa la wax ridiculiser leen ñu ñàkk jom ñàkk fayda ñu teg leen di leen conférence de presse ñuy dagg ay vidéo di monter ah naan kii ci suñu kaw la doon tiire te benn policier jamuñu ko ci benn kii ja ku yor Kalachnikov di tiire benn policier deewu ci ci ballu Kalachnikov ñu naan ñu dagg ay Sénégal lañ la ñuy ay ministre di ridiculiser ay di ridiculiser ay commissaire di ridiculiser ay papay jàmbur yoo xam ne ils n'ont benn vergogne amuñu ko benn once de dignité amuñu ko loolu Sénégal la am Sénégal la ñuy jël ay juge di leen ridiculiser di leen sant ay liggéey yu salte ñu koy def ba pare di daw comme ay kañe ci biir ville comme kañe ci ville ñu leen di wër ñu dugg fii génn ànd ak seeni doom yi di wër di daw rek di làqatu la lan moo ko jar est-ce que àdduna am na lu fi nit créé lu jar ngay def du sal ba jaral la nga ànd ak njaboot di làqatu comme kaña ci biir dëkk lan ko fi jar lan lan yi àdduna moo ko fi jar fii loo fi gis day jeex lu la waaye mun a jox loolu fi gis day jeex dara jaru fi tay sa ngor wala nga tay la askan waxuma ngor sax tay askan ngir sa bànneexu bakkan nit yi lañuy tay seen bakkan ngir seen askan mais kenn du tay sa askan ngir sa bàkkan du nit donc ñun nag ñoo war a sàkku fulla ak fayda fulla ak fayda nañ yokk fulla nañ yokk fayda te libérer le soldat Ousmane Sonko mu mun a dem tabaski fi mu bëgg a tabaski soit Ziguinchor chez auprès de sa mère et sa mairie Ousmane Sonko maire boo xam ne moom munul sax dem dem dem ci maireem plus de vingt vingt deux jours Ousmane Sonko toogul maireem Ousmane Sonko génnul ci mbedd mi Ousmane Sonko doxantuwul nuyuwul nit nuyuwul mbokkam déggul yaayam ay soxnaam dégguñu seen papa dégguñu seen yaay coupé au reste du monde dans un pays comme le Sénégal. mu am plus de ay foo xam ne population moo xam jeunes yi sax ñoo ci ëpp mënuñu libérer kooku ça reste un problème quand nañ taxawaat waaye gars yi un peu de détermination encore plus de détermination négation ñu libérer le soldat Ousmane Sonko de la prison fi muy dund nii ñoom mun nañ ko fa bàyyi cent ans c'est que ci li ngeen xamul ñoom mun nañ ko fa bàyyi cent ans jël benn nit kese muy dugg di génn ñu koy palper du dugg téléphone du dugal dara mu indi leen ay ceeb ay diwlin ñuy lekk di naan kese mais mu ñoon mën nañ fa bàyyi santaan mais Ousmane Sonko fii la prison mais gars les les gens ils attendent quelle prison kan moo ñëwee taxaw ne Ousmane Sonko dundul prison na ma na kenn wax mais mi ngi dund prison bu gën a metti plus de vingt deux jours plus de vingt trois vingt deux vingt trois jour avant le premier lañ ko dugal ci këram ba suñu jonn yàlla tey génnul tey la le vingt le premier ba le vingt de jours ak te jël nañ ko avant yoru téléphone yoru ordinateur yoru portable waxul déggulantu leen déggulal yaayam yaayam déggu ko amul déggul ay mbokk mais kasoo ko gën man de kasoo ma ko gën parce que boo demee ci kaso sa yaay dina la seet si boo demee ci kaso sa papa dina la seet si boo demee ci kaso di nga am nga cour fu ngay doxantoo boo demee ci kaso am di nga gis ay nit boo demee ci kaso di nga am ay visite boo demee ci kaso di di nga euh, euh, bu ñuy dugal ci boutique ba ngay dem di jël la neex boo demee ci kaso quand même di nga gis say mbokk di nga di wax di nga communiquer mais moom ca fu ñu ko dugal muy këram nangu nañ lépp luy téléphone nangu lépp luy ordinateur mënul communiquer mënul wax ak ay sympathisant am mënul wax ak ay partisan am wax ak ay waajuram munul wax sax jàpp nit tëj tëj benn nit ak jabaram ak ci doomam ci biir kër nangu lépp te sa yoon taxaw di leen barricade ne kenn du kenn du génn peuple bu déterminé ngeen foog ne la mu euh, ay barricade mun na ko téye dites-vous bien que peuple très déterminé ay barricade mun na ko téye Sénégal bu ñu jógee Macky Sall da leen mun a téye ñaatoon lañ ko def ñaatoon lañ jóg Macky Sall mënuñu téye lu fi amoon du fi amaat ñu amale ko kon kay buñ taxaw déterminé wu yëg suñu yaram ni li Ousmane Sonko di dund dund bu ñu jógoon léegi ñu dakkal ko lu ñuy xaar. loolu mooy problème bi mais ñun problème bi xam naa ni sénégalais bu ñu jógee dara mënu leen téye parce que force reste à la loi la loi c'est le peuple y a pas amul beneen loi la loi c'est le peuple loolu moom à l'unanimité ñëpp a ko xam donc peuple bi ñëw jógagul mais bu ñu jógee xam naa nekk dinañ ko mën a libérer tabaski jot na nag ak papa jàmbur la bu toog di subir injustice ci dëkk ay sëriñ nekk fa ay xutbu samaan nekk fa ay imam nekk fa ay nit ay nit yu baax tëdd fa donc ñu jàpp benn doomu aadama dugal ko këram ak njabootam nangu lépp lu ñuy communiqué tëj leen ci biir kër gi mënuñu génn plus de vingt et quelques jours bientôt un mois bientôt un mois bientôt un mois Ousmane ko def ko ci ci kasu këram boobu ci këram munul génn munul dëkk kenn munul dem kenn munu ko gis ay avocat mënuñu ko gis yaayam mënu ko gis ay frère am Ousmane Sonko am nay frère am nay sœur am na ñeneen ak ñeneen mun ñu ko gis ay mënul wax ak ay partisan am mënul wax ak ay euh, militant am c'est catastrophique ce qui se passe dans ce pays c'est catastrophique jamono ci moom sincèrement bu dee Sénégal am na kuñ ne dafa baax muy yeewu di tëdd gis li am te mënuñu ko lijjanti amuñu ci solution te Macky Sall la taxawaal taxawaalu nu mu ko neexee ci dëkk bi man loolu moom buñ la dëkk woo am na am na sax ay bañkat da da ngay toog di xool c'est vrai nag am na ay bañkat mais quand bañkat yi lan lu xew xanaa mu ZZ da leen a màtt wala dañuy nalaw wala Macky Sall bërki démb dem na fi Russie jóge na fa dem na kii tey suba mi ngi far mi ngi Macky Sall depuis presque une semaine nekkul Sénégal mi ngi taxawaal rek mi ngi wëndaalu ay njabootam a ngi wëndaalu jabaram a ngi wën ñëpp a ngi wëndaalu ñu jàpp ab papa jàmbur te c ci ci këram même jabaram yi sax amuñu téléphone benn jabaram wéetul téléphone yoruñu sax téléphone boo leen message yoon fu mu nekk nii depuis le trois ay soxnaam lañ gëjëm bind nit seen yaay yi sax amuñu fuñ ne ñu jur seen seen i mbokk yi sax xamuñu fuñ ne c'est inadmissible mënuñu dem seeti seen papa mënuñu liggéey mënuñu dem ñëw mënuñu seeti seen i mbokk nañ ci wut pexe waay gars yi nañ ci wut pexe bët bu rusul tag Ousmane jiwu ñu lii de ñun ñoo fi nekkoon ànd ak moom vraiment lu mu wax ñu ne ko est-ce ñun ñoo ko doon wax ay garsa garsa ñun ñoo fi ne woon naan ko ay extrême limite sës nañ terminus bu waxee ñu tàccu ànd ak moom ne ku lalaal dee di dee loolu yëpp ñun ñoo ko doon wax ñun ñoo lépp parce que moom nee na ginnaaw yàlla ñun la gëm mais fuñ ko dugal noonu fa mu mu toog boobu ba léegi munul génn munul dem munul dikk xanaa sénégalais nag nit ki lu la jii boo toogee boo toogee sax xalaat danga ne ah mais sa waay kii ji na ma fi loo xam ni vraiment bu demee ba am fit gi yenn fit gi am yenn di yenn certitude yi yenn nang man tamit pecc liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbag ja man maa ca mbagg ji moo tax mu am sañ-sañu def yenn yi peccum liir bu neexee nday jàpp ca mbagg ja Ousmane bu mu nee am fi taxaw di défier Macky Sall te mu wër ko ne yorul arme yorul fetal yorul basoka yorul bomb yorul ay missile kon nga xam ni kon peuple bi la yaakaar bu taxawee ne moom mu di défier Macky Sall nga xam ni kon Ousmane Sonko peuple bi la yaakaar Macky Sall bu taxawee di défier euh, Ousmane Sonko nga xam ni kon Macky Sall ci armée bi la yaakaar euh, maanaam police beeg gendarmerie yeeg yooyu te peuple moo ëpp police moo ëpp gendarme Macky Sall daa daw ci ginnaaw force de l'ordre yi laqatu foofu di menacer Ousmane Sonko daw ci ginnaaw peuple bi di di di menacer. kooku bu xeex dee am Ousmane Sonko moo war di gagné saa su ne parce que peuple mat nañ junni force de défense et de sécurité force de défense et de sécurité sax ci peuple bi lañ bokk parce que bu ñu paree dañuy ñibbi seen kër yi ñi ñu tiire ñi ñu rey ñëpp ñu ngi ñibbi seen kër yi soit ñu ngi seen kër papa yi seen kër yaay yi ak seeni jabar soit ñu ngi si seen kër yi ñi ñu rey assassin yi ñu rey nii ñuy wër ñoom ñëpp delluwaat nañ ci kër yi kon nga xam ne Macky Sall amul dara amul dara ñi mu yaakaar si boobu sax ci ñun lañ bokk buñ leen rayee ñun ñooy dëj buñ ñu rayee ñoom ñooy dëj ñaata booy yi ñu rey am nañ ñoo xam ne seeni grand yi nekk nañ policier seen nijaay policier wala gendarme kon Macky Sall il est seul pour peuple bi déterminé woo rek c'est fini on règle l'affaire alors maintenant yéen laay laaj ba xam vous avez décidé bàyyi noonu Ousmane Sonko ak ni muy dundee ngeen dem tabaski ji wala Qu'est-ce que vous avez décidé De le libérer avant la tabaski pour, pour qu'il puisse, avec sa famille, avec toute liberté, passer de bonnes fêtes de tabaski Ou bien de décider, Bayiko, Moutok, qui ni dem tabaski avec euh, la conscience tranquille. Côté moom question de Bob, interrogation, quoi, Le peuple sénégalais, dans sa globalité, muy France di Canada feneen di Sénégal ak fépp fu sénégalais ne diaspora bi qu'est-ce que vous avez décidé de laisser Ousmane Sonko dans cette prison avec sa famille mourir à petit feu e de ne pas passer la tabaski parce que tabaski balaa nga koo passé sax dangay génn mën a dem jëndi xar xanaa doo toog sax fu ngay toog sax mel wala euh, père Jibril Jibi euh, xawma la moom mooy dem jëndal lépp lépp même looy lekk ay nit taxaw rek barricade la doo dem doo dikk doo woote téléphone kenn du la gis kenn du la yëg doo yëglu kenn kenn xamul ci loo kenn xamul daa feebar kenn xamul lu ko dal kenn xamul te ci koo xam ne barki dem lañ ko pompe poison barki dem lañ ko pompe poison ñu tëj ko ci biir këram c'est trop bu defee nii moom Macky Sall du ko jàpp moom bu nii fii la foofu la koy bàyyi du ko du ko yóbbu kaso de kaso bu ñuy wax noonu non parce que li ça l'arrange depuis bu mu fa dugalee Sonko Sonko vidéowul Sonko audiowul Sonko waxut Sonko wa munuñu ci jot kenn munu ko dégg kenn mais Macky Sall bu ko neexee danaan lu ñu wax naan lu ñu wax naan note boobu du mës a génn juge bi du mës a bind note boobu dañ naan mais ko fi ko bàyyi baax na fii gën a metti sax dañ naan fii baax na waa ji demul nangu nangoon nañ passeport mais lii waxatuñ sax passeport léegi moom lañ nangu nangu dañoo nangoon passeport ni du voyagé mais léegi moom moom lañ nangu dugal ko ci kër tëj mi ngi il vit la prison hein même pas la prison à ciel ouvert parce que ci biir kër la ne il vit la prison xanaa même si boppam bu doon vidéo boobu sax audi euh, euh, même vidéo bi na nekk lu bees mais imagine leen ñun ñu toog gis benn waay boo xam ne depuis le vingt huit vingt sept vingt huit lañ ko jàpp dugal ci këram ñu toog benn yoon gis ko mu tël bal duggaat génnaatul ba léegi mais xanaa loolu rek war naa mën a génn sénégalais yi parce que dañ naan mais kon kii may nañ ko pour mu def benn cours de une heure deux heures de temps a tël benn bal dugaat na ci kaso bi mu ngi biir këram ci biir kaso bi bàyyi këram bu moo fa bàyyi boppam ñu ne newul ci kaso mais këram bàyyi fa boppam dañ koo jël dugal ko fa tëj ko fa kon kay dañ ko tëj loolu mooy tëj ji restreindre tes libertés restreindre ta liberté restreindre tes droits loolu mooy emprisonnement loolu mooy tëj man boo mu bu fekkoon dugguma sama kër nga yannu ma ci biti dugal ma fii tëj bunt bi ma nekk sama kër di lekk di naan rek toog toog di jaabante sama biir kër kese danga maa tëj loolu mooy tëj di mooy dangaa restreindre sama liberté dangaa néewal sama déplacement ni ma doon bouger di dem ak ñëw mënatuma ko fii ma doon dox di dem mënatuma ko mairie bi may gérer mënatuma ko mënuma liggéey sama jabar mënul liggéey samay doom mënuñu jàngi et cetera danga maa tëj danga maa tëj léegi nag bu fekkee ni boobu dérangé wul Sénégalais yi Macky Sall danaan kon bàyyi leen ko fii rek bu kenn bind bu ko kenn bindal dara bàyyi leen ko fii fii moo gën a tar rëbës ko fa dem danañ la seeti ñoom kii la ñu fa métti na loolu mais gars yi ñu ngi leen di am nañ ay cours ñu ngi génn wax ak gars yi ku bëgg leen ku leen bëgg a gis boo demee wuti permis man Ousmane Sonko moom amul permis moom moom fi ñu ko tëj amul sax permis kenn mënu ko fa dem seeti du ay mbokkam du partem du ay militant du ay sympathisant du ay jabar du ay yaayam du ay frère am du ay sœur kenn mënu ko même ay jabaram mënuñu génn loolu nag tax ma ko ay mbokki jabaram ñoo ñooy mettitlu ay mbokk ay xaritu jabaram vraiment man démb am na ay xaritam yu ko jege lool yu ma woon carrément woo ma wan ma nuñ mujjee wax ak ay soxna Ousmane Sonko kenn ki depuis le 3 nee ma depuis le 3 te ñoom ñaar ñoo màggandoo. ay gaayen lañ fu ko bindee da ko doon tontu mu ne ma depuis le trois sama sama dernier message mi ngi nii te yemul ci kooku ñetti nit yoo yoo xam ne recevoir naa leen ci ay ay mbokku jabar Ousmane Sonko la mais nee nañ seen i ñoom seeni doom kii nee na sëram kii nee na xaritam muy mooy jabar Ousmane Sonko yi depuis le trois teguñu dégguñu leen xamuñu ci luñ nekk ñoom ñi nekk ci fitna xamuñu ci luñ ne te jabaru Ousmane Sonko deful dara politikul politikul politikaanul nga jàpp jabaru jàmbur te ci biir kër nangu seeni portable nangu seen lépp mënuñu communiquer parce que lan da nga ne ñoom ñoom bu yore portable Ousmane Sonko mën na ci profité du communiquer nga nangu lépp kër ga nga vidé ko lépp lu électronique doomu Ousmane Sonko nga nangu téléphone ay doomam nga nangu seen téléphone seen baay nga nangu quatre téléphone am xaw ma cinq nangu passeport am nangu fetalam nangu permeem ñu nga nangu otoom nangu ordinateur am nangu lépp vide kër gi ak lépp luy électronique ba mu vide nga bàyyi leen fa nga xam ne ñoom léegi lu ñuy xaar ceeb la ñuy xaar ceeb jibi xaw ma jibi njaay xaw ma ñëw indi leen ceeb ñu ñu togg ceeb lekk mu ñëw indi leen ndox ñu ñu lekk mu indi leen suukar suukar saa ngi jeex mu indi leen suukar mais sa ay avocat mënuñu ko gis yaay mënu ko gis ay mbokk mënuñu ko gis ay mbokk jabar mënuñu ko gis ay dooma mënuñu jàngi ay jabar mënuñu liggéey mais sama gars loolu prison la de prison bu métti la ku ko waxul dangaa waxul dëgg dangaa naafiq dama ne Ousmane Sonko mi ngi dund kaso bu tar bu tar laa la damay tar laa bu tara tara tar Ousmane Sonko moom la nekk di dund nii dara gënu ko métti ci kaso man de dem dem rëbës sama ko gënal junni yoon ak juróom-ñaar dem rëbës moom ma ko gënal junni yoon bokkul sax di ma tëj ci kër gi nii mënu ma dem mënu ma dikk yow ngay ngay voyagé nu la neexee di wër ci monde bi yow Macky Sall moment bu muy rey nit ñi moom mi ngi dem ay Russie ak ay Ukraine naan day rek la yor ak bougé ma kër gi mais mais imaginez-vous le nègre et la médaille yéen ngeen foog ni Macky Sall am na benn wax. bu ko Poutine Poutine dina déglu Macky Sall Poutine mun naa déglu Macky Sall Macky Sall moo fa ñëw bërki def di ñaan blé dañoo xiif dañoo nangam fekk français ko yónni blé boobu yéen lekk ngeen ko ñaata tonne la Russie jox Macky Sall ana bi gis ngeen ko ci port bi mus ngeen gis blé bi ci blé bi ci aéroport bi mus lekkuñu blé bi France moo yónni Macky Sall dama ñaanal ma blé parce que France amul fitu dem ñaan Poutine blé ñun blé blé dañ koy manqué si Afrique Afrique nga xam ni dañuy bay blé dugub baa ngi fi mboq baa ngi ñun dañoo soxla blé bu ñuy ñaani Ousmane Macky Sall dem di sukk ci kanamu Poutine di ko ñaan doon taalibe di ko saraxu mu jox ko ay tonu blé mu dem jox ko France kenn ci lekk na blé bi lu ñu doyee blé Sénégal Afrique dina jooy blé nga xam lépp blé la rek mën nañ dundee blé bi dugub baa ngi ne gàññ mboq baa ngi ne gàññ gerte gaa ngi ne gàññ farine gaa ngi fees dell ci réew wa yàq kenn xamul fu ñuy jël mi ngi mel ni ñi dem ñi dem di ñaani Russie naaj Afrique buy dem ñaani Russie ay naaj pour mu may ko chaleur naaj loolu amul fenn kon France moo yónni woon Macky sàll te bu mu jëlee blé ba Russie jox ko ko da ay France la ko joxi ñun kenn gisul blé boobu donc Macky Sall bi demoon démb di sukk ci euh, Poutine di ñaan blé kooku mën naa ñëw di régler yéen imaginez vous rek Macky Sall ñi mën naa ñëw fekk Poutine mu toog mën naa ko non nañ rek réglé <laughs> demul Amérique Amérique ñëwul réglé ko France ñëwul réglé ko Allemagne ñëwul réglé ko Macky Sall pauvre type dëkkam nekk ci guerre ñu mu ñuy rey ay nit moom mu dem naan day day jéem a lijjanti Ukraine ak Russie <laughs> quand même le ridicule ne tue pas Sall xam na baayam xam na ci suuf bu mu ne yaayam xam na ni junniy Macky Sall mënuñu mënuñu régler le problème euh, de la Russie et de l'Ukraine moo xam na ko man yemul foofu sax dama ne tout le Sénégal dans sa globalité mënuñu régler le problème de la Russie et de l'Ukraine c'est pas un petit problème là Canada damuñu régler ji ko Amérique damuñu régler problème boobu France ñu régler ko Allemagne ñu régler ko Macky Sall pauvre type ak ay ñu torox tot seen dëkk yi di tàkk ñu ne dañ koy dem régler ngeen xam ne caaxaan am na dafa yàq suñu kérosène yàq suñuy essence yàq suñu euh, jël suñu avion yóbbu yàq suñu alal ci hôtel yi mais Macky Sall xam na en âme et conscience ñu même bu àndoon ak baayam ak yaayam mënul régler dara ci Poutine Poutine considéré wu leen sax bu ñu nekkee Ukraine la leen Poutine dóori bomb moment bu ñu demee Ukraine yor seeni kii di kii si saa sa la leen Poutine envoyé 4 5 6 bombes tël tël tël tël tël ne leen kon kon kon Macky mbaa yéen a nga fa mbaa yéen a nga fa le même jour ba ñu demee naan yore seen boujour kuti kuti kutin dóor fa putin dóor fa benn trente bomb to wala ni yéen man kan moo leen mun a considérer ak seen ñuulaay ak seen xasawaay ak seen pauvreté ak seen dëkk yaa ngi tàkk mbi sili réglé wu leen ay amu sax ay dëkk ay ngunu ginaar ngeen yor Sénégal cent quatre-vingt-quinze kilomètres carrés ngunu ginaar nga yor par rapport au reste du monde nga bàyyi sa ngunu ginaar sey ginaar nekk fa di fa day ngunu gi xañ xun nga ne da ngay régler ji ay immeuble jàmbur nga xam ni kon ginaar googu su suqi saaf rek la la mérité yaa ngi yor sa ngunu ginaar dëkk monde bi nu mu day yow nga ne yow yaa ngi yor cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quinze kilomètres carrés nga ci yor nga ci yor lekkoo naanoo say ndolo doy nga yore su ngunu ne da ngay lijjanti ji kër jàmbur immeuble jàmbur yeeg gratte-cielu jàmbur yi te yow sa ngunu gaa ngi xasaw xunn ak ay day ngeen xam ne Macky Sall day caaxaan c'est amul benn jër ci ñun na day ja day jaabante amul benn cër même bu mu ko waxee président Ukraine bi lu mu ko wax <laughs> daf na ko sa waaye yéen da ngeen ñëw pour doxantu si wala vous êtes là pour circuler vous vous avez envie de da ngeen bëgg xool lan mooy bomb wala fii ñii di wax ay ay bombe atomique ay ay Russie di wax ay bombe nucléaire di wax ay atomique bombe yow fa nga nekk pétard sax da ngay daw pétard tëll nga daw ngay ñëw di régler yow yow sa dëkk am ñoom pétard lañ ngay dem ci dëkk yu dóor yi bomb nga ne da ngay régler ci loolu y problème ça montre encore une fois que Macky n'a aucune considération vis-à-vis de son peuple faalewu leen au moment où gars yi ñu ngi tiire gars yi ay kalachnikov di leen tiire ay RPG 7 ay 12 7 et cetera et cetera gars yi di tombe comme des mouches encore une fois pour bañ ko fàtte képp ki nga xam ne subir nga victime nga subir nga ay balu fetal ak fu ñu la mun a jàmm yor naa ci yu bari mais dem identification bi laa amul te euh, ki nga xam ne mooy Juan Branco daf ma daf ma laaj ne ma yenn vidéo yu bari yoo xam ni man xaw ma ñan la seen tur yi ak seen sant yi seen original tur yi ak seen sant yi donc ñi nga xam ni dañoo gaañoo jàpp leen ni Sénégal moom mënu leen fa am justice ndax justice amu fa waaye ñun dëkk yi ñu nekk am na justice justice bu doy waar moo am ci suñu dëkk yi caaxaan du ko fa dindi ay kasaw kasaw dindiwu ko fa seeni ministres yi kenn considéré wu leen fii ay kat ci kat lañ donc yooyu dañ ko soxla bu leen ko caaxaanee bu leen foog ne rek jël ko dugal ko ay TikTok ak ay Instagram ak WhatsApp mooy tëngal gaynde gi ñun dañ ko soxla constitué nañ ay collectif d'avocats international am nañ leen fii ñi ngi France Juan Branco yi fa fii am nañ ko feneen ak feneen yëpp vidéo yi may yónni yëpp dañ may bëgg identification parce que boo yónnee benn vidéo am na kuñ jam ci ci pooj yor naa vidéo bi yóbbu ko pooj bi day ni innama nii la toll mais bu ma ko yóbbee dañ ne ma identification parce que dañ koy identifier kii kan la ñu bind ni kii mi ngi tudd Paate lan la sant Njaay kañ lañ ko fan la dëkk ñu jox adresse bi fii la dëkk kañ lañ ko jam ñu xam ni fa yoof lañ ko jamee wala ngor wala wakaam wala tel foofu lañ ko jamee loolu lépp dañ ko soxla on a besoin de tous ces éléments pour mun ko dugal parce que mënuñu ñëw rek jël benn photo rek génn ne euh, kii nangam lañu bëgg identifier donc on a besoin de ça je suis comme nu ma ko waxee de travailler avec en euh, parfaite collaboration avec Juan Branco ñu ngi nekk di liggéey ci loolu ñun tamit wut nañ fii benn pôle d'avocat international pour porter tout moo tax ñoom ñemewuñ fi ñëw xam nga bu dee moolaa ngi fii di leen saagaay nday di leen menacer suba ngoon te mënuñu ko dara mu ne doo leen ñemewuñ fi sax ñëw parce que si même seen seen ñu génnatuñ kañ ngeen nga gis ñoom ñuy génn nii ñii à part ñoom Macky ministre yeeg di taxawaal yooyu non ñoom ñëpp ci kaso bi la ñu mujj man maa leen ko wax wérintu xuuxaan tekkitu eh, wérintu xuuxaan tekkitu ba ci xaaxaam rek laa ci xam dama ne yàggatut temps yi will ñoom ñëpp ils finiront en prison des preuves tangibles donc ñi ngi maa ngi wax ñi nga xam ni ñoo gaañu ñi ñu jam fetal te deewuñu wala ñi am ay mbokk yu dee yi ci dee ci mbir manifestation yi maa leen di wax ne ñu jàppale ma ci buñ ma mënee contacter ci sama whatsapp 77 641 53 24 amul benn danger whatsapp mënuñu fa dugg ba génne la mënuñu fa dara lu ñu wax dañuy kàcc mënuñu fa dugg génne la mënuñu amul yàlla may leen benn xam-xam buñ lay jàppee diggante sama waxtaan yoo man am amul c'est très confidentiel whatsapp c'est confidentiel groupe xanaa nga dem ci groupe di wax ñu jàpp la mais whatsapp ak whatsapp Macky Sall sax am na whatsapp am na ñu muy waxal Sonko amoon na whatsapp am na ñu muy waxal man boo ba léegi information ma leen mus a jox quatre-vingt-dix pour cent ci whatsapp la jaaree kenn musu dem jàpp ci kenn ñu leen donc whatsapp nit mënu cee jàpp nit comme ñu leen di napp naan ay non moytu whatsapp ak naan dañuy kac maa ngi woo képp ki nga xam ne gaañu la nga ci gaañ nañ la ci wala rey nañ ci sa mbokk boo yoree vidéo bi original bi vidéo bi original waxuma ay buñ dugal ay tiktok ak buñ nangam ku yor vidéo original identifier ki ñu ko def sa mbokk bi ko def wala xarit wala ku mën doon ki ñu ko def xam nga turam xam nga santam maa leen di ñaan ñu contacter ma sur le mon whatsapp 77 641 53 24 641 53 24 nga yónnee ma vidéo bi original identifier kan la man dinaa la poser ay question nga jox ma lépp dajale dinaa ko jox pôle d'avocat bu nekk Canada dinañ ko yónnee tamit Juan Branco identification tout ñu xam ni telle personne la mi ngi nii nii la meloon dafa demoon ci marche tel jour parce que dinaa la poser question yooyu ban jour la tele jour la génn fan lañ ko jamee ngor lañ ko jamee nii lañ ko def et cetera et cetera loolu nañ ko jël mun ko yóbbu ci ay y a pole pôles yu commencé constitué wu par si par par là et cetera par ci mo ci àdduna fépp fu sénégalais yi nekk c'est facile dajale cinq six avocats sénégalais marocains canadiens et cetera et français ñu dajaloo ñu def ay pôles d'avocats pour jox leen affaire yi ñu porte affaire yi parce que du Juan Branco kese bu fekkee Juan Branco dugal na am ay quatre cinq avocats yi nekk Canada dugal ces pays ñu nekk Belgique dugal ñu nekk Hollande dugal bu boobaa dinañ xam ni lii kon combat bu ñu bëri porté du benn nit kese. donc il faut ñu internationaliser ce combat là on a les moyens on a les moyens on a les compétences ngi fépp ay borom xam-xam lañ ñi ngi ci instance dirigeante yi ci monde bi yëpp yàlla may na leen jàng nañ mokkal nañ xam nañ te ñi ngi fépp foo dem di nga fa foo dem ci monde bi di nga fa fekk ab nit bu ñuul macha allah. nit bu xeebul boppam wala nit bu respecté boppam maanaam lu mu tuddati considère am considéré ay qualité am ñi ngi fépp donc on a besoin de ça képp ku ma mën a contacter ci vidéo originale photo mun a joxe ak identification dañ koy soxla on en a besoin ok guys donc pour xamal leen ni pour l'instant ñun ñu toog nii rek tabaski benn fan la tabaski du sax farata du farata benn fan la mais libération wu dëkk du benn fan te farata la dama ne tabaski du farata te benn fan la libération dëkk farata la te du benn fan donc kenn mënul bàyyi xeex bi pour la libération de ce pays de cette nation guerrière di wax waxu tabaski waxuma nag kenn bu mu wax tabaski mun ngeen wax waxu tabaski man moom tabaski gëj naa xam cafka ba ca ca ba ma gëjee tabaskee Sénégal yu may dem sa bu mujjee Sénégal bii passé en deux mille dix neuf ma fa mujjee mais tabaski c'était à cinq jours de la tabaski ci laa dem jënd samay billets ñëw ne la maa ngi ñibbi maa ngi dem. dañoo tiit ne waaw mais doo xaar tabaski non <laughs> parce que je l'ai démystifié du farata je l'ai démystifié depuis farata tabaski mun naa leen laajal nii nii laay sol laajal la damay sax dem liggéey moo wàccee ñëw laajal la bu leen neexee ma kii ma dem jënd sama yàpp ñëw togg et puis et benn fan la sol grand boobu comme yéen taxaw et puis benn fan la benn fan la. même julli tabaski sax du farata julli tabaski sax du farata tabaski du farata donc mënuñu ko jël sacrifier suñu libération peuple pour loolu te tabaski boo ratee benn bi taxul nga ñàkk parce que chaque année am na tabaski <laughs> boo ñàkkee bii dem ci bële waa cinq jours de la tabaski en deux mille dix neuf laa dem sama yoon dugg sama avion dem Paris maa ngi fàttaliku ko kër Omar Ben Khattab biem ji footi foofu foofu laa tabaske après ma dem seeti ji ko tabaski fekk ma fa on est parti man ak moom ñu dem jënd yàpp ñëw indi jabar togg ñu lekk puis c'est fini toog seetaan télé guddi gi ci affaire journée bi jàll gis nu mu gaawee fini c'est fini rien n'est extraordinaire dans ça yow nañ dem julli ji ñëw après la vie continue donc tabaski munul a munul fexe ba changer naqar gi ngay dund munul munul changer mettit bi ngay dund munul changer injustice ngay dund munul changer donc loolu mooy farata ba li ngay tegg ci yow li nga xam ni daa diis ci yow metti ci yow ngay jéem a lijjanti ba pare doo ko wax lële lu yàlla deful farata munoo ko farataal déedéet munoo ko farataal yàlla ci boppam moom moo deful moo ko faratalul moo ko faratalul wax nag bu ko kenn def mais quand même yaa am na lu ko ëpp importance ko xeex injustice loolu farata la Ousmane Sonko lu ñu ko teg nga xeex ko ba libéré ko injustice farata la ñi ñu jàpp rey leen plus d'une cinquantaine ubbiwuñu jéem uñu ci enquête numéro neuf ba di doxantu nu ko neex Sénégal raykatu nit ba ak ñeneen ak ñeneen nervi di dox jàppuñu ci kenn enquête yi ubbi criminel yi ñu rey cinquante et quelques personnes yi jàpp ñu ci kenn mais loolu farata xeex ko bañ indil la assassin yi farata la de ndax damay ragal nga tabaski ba pare génn ne da ngay xeex assassin boobu rayoon sa frère génnaa rayaat la tant que assassin boobu yow rayoo ko wala ñu tagal loo ko mais yow yaa sa vie mi ngi en yéen sénégalais yéen ñi di yeewu naa da ngeen di wuti seen vie yëpp mi ngi en yéen ñëpp ku ci bokk ku ci bokkul parce que Jérôme Bandiaki moo dem taal sama kër ak ay nit tiire otu oto dàmbuj di def saal moom ak ay nervi mais ba léegi ñu ngi dox mais parce que jàppuñu ko reyuñu ko taaluñu ko loolu moo tax mun na ko def keneen te da koy def keneen ñu dem taali oto Cheikh Omar euh, kii euh, euh, Cheikh Baara Ndiaye sama kër lañ njëkk a taal Sénégalais yi toog nice ok ñu demaat sa même Jérôme Bandiaky dugaat même oto le même modus operandi dem tirer à bout bout portant dàmbuj ñu génnaat moo identifié ko nii solul kagul solul dara ñëpp gis Jérôme Bandiaky mu dugg ci caméra yi wane ko lépp vidéo yi wane ko hôtel bi wane lépp Jérôme ki boobu mi ngi ba léegi mi ngi dawal di doxaani di laal cage ji di naan sangaram di mi ngi mi ngi marché nu mu ko neexee c'est même Jérôme Bandiaky nanguñu fetal arrêté wuñ ko c'est même c'est même Jérôme Bandiaky dem taal moom ak gàngooram oto Cheikh baare Ndiaye ba mu tàkk jëppee jeex tàkk mu ñibbaat këram encore demaat ci cage ji di laal mais parce que sénégalais yi tant que kon yéen ñëpp seen vie mi ngi en danger parce que suba Jérôme Bandiaky mën na leen rey seen vie mi ngi en danger yéen wër tabaski mun ngeen tabaski ba seen biir fees ci xar ba seen biir fees jaram bànjaki ñëw rey leen wala numéro 9 bi ñëw rey leen wala yeneen nervi yi ñëw rey leen parce que jàpp benn nervi seen justice bii wax naan justice jàppul benn nervi jàppul benn criminel ubbiwul benn enquête ba suñu jonn yàlla te plus de cinquante et quelques morts jàppaguñ kenn kenn kenn kenn ku gën a ndaw quoi qu'il en soit xanaa mun jàppaliñ sax benn depuis deux mille vingt et un ba léegi deux mille vingt un ñu ngi deux mille vingt trois deux mille vingt un ba suñu jonn yàllay tey ñu rey quatorze doomu aadama gouvernement bi jàppul sax benn benn même melentaan jàpp ko mu teg ci François Mancabou ak nuñ ko reyee jàppul kenn ñu teg ci Didier Badji ak nuñ ko reyee jàppul kenn ñu teg ci Fulbert Sambou ak nuñ ko reyee jàppul kenn ñu téere Idrissa Goudiaby bi mu daanu caddi caddi ba sedd guy jàppuñu kenn ñu rayaat beneen booy foofu noonu ca Casamance jàppuñu kenn ñu fekk benn booy ginnaaw Masaalikul Jinaan taal ko ba mu tàkk jëppee jàppuñu kenn loolu c'est deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille deux mille vingt trois ñu rayaat trente ak leneen ñu rayoon muy cinquante et quelque jàppuñu kenn du nervi du Jérôme Bandiaky jàppuñu oto jàppuñu arme jàppuñu kenn et puis dëkk boobu mun a am na justice peuple bi taxaw di ci werante di ci débat ci télé am na wala amut depuis deux mille vingt et un ñu ngi rey di taal di lakk di boyal te lépp ñoom ñu ne ñun ñooy taal. donc xam naa peuple bi ñoo taal sama kër xam naa peuple ñoo tiré euh, ndàmb xam naa peuple bi ñoo taal këru Cheikh Bara Ndiaye xam naa peuple ñoo taal siège social bu Pastef. xam naa peuple bi ñoo taal kër ayda Mbodj xam naa peuple bi ñoo taal kër Waly euh, Bodian xam naa peuple bi ñoo taal ñoo ñi dee yëpp peuple bee leen rey plus d'une soixantaine de personnes kon peuple bee leen parce que jàppuñu kenn kenn kenn mais peuple bi nag war na jóg de <laughs> soulèvement bu doy waar def jot na de xaw ma lu ñuy xaar nag xaw ma lan xaw ma lu leen nalaloo xaw ma saafara juñ sotti la mais je sais pas je man sam bopp sax j'arrive pas à comprendre dama ne mais ñun lu ñuy xeex mi ngi nii taxaw Ousmane Sonko ci kaso bi mi ngi kër du tëj ñii ubbi ñu benn enquête mais Boubacar Bay mais on attend quoi en fait on attend quoi plus d'une cinquantaine de morts on attend quoi qu'est-ce qui se passe ici lan lu xew lu waral lii passivité bi lan moo lu ko indi lu ko indi d'après vous lan moo ko mooy deuxième question bu ma leen laaj yow kon naa leen laaj léegi beneen bi mooy passivité bii ñuy dund nii jamono ji lan la ak injustice bu doy waar bi extrême bu ñu nekk di dund nii ak passivité bu am ci ñu lan la lu xew ñoom ñëpp ñu ngi daanu feebar di tombé comme des mouches Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ci mi ci hôpital bi boobu ba léegi euh, kii euh, Euh, euh, Cheikh kii waaye moom tam mi ngi mi ngi ci hôpital bi euh, ki kii Diagne man Cheikh bi rek laa koy wooye kii Diagne waay j'ai oublié son nom mi ngi mi mi ngi ci hôpital bi kenn wéru ci lekk ya baaxul dara baaxul Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne Cheikh mi ngi ci hôpital bi Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ci hôpital bi même beneen booy bu ñu dóoroon gaañ ko mi ngi ci hôpital bi est-ce que xam nga ñaata ñoo nekk ci hôpitalu kaso bi y a plus de trente personnes ñi ngi ci hôpitalu kaso bi hôpitalu kaso bi y a plus de trente personnes ñi ngi fa ñii seen bopp yi ñoo toj ñii ñii ñi jam leen ay ay bal te ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci hôpitalu kaso bi gars yi détermination abnégation encore une fois ah sama gars yi Pape Abdoulaye Touré mi ngi foofu mi ngi ci hôpitalu kaso bi dóor ko ba mu fekk ko këram jàpp ko génn ko dóor ko ba mu toll dund ak dee ñu jàpp ko ba pare yóbbu ko ci hôpital bi pour bu ñu ko fajee ba pare après ñu tëj ko ci kaso bi mais c'est du jamais vu lu nekk Sénégal la ah ça n'existe pas ah ça n'existe pas il faut que peuple bi koy subir nag tamit gën a déterminé wu parce que ak lu ñu mën a déterminé wu déterminé wu peuple bi war ñoo mën a gën a déterminer parce que ñoo koy sibir ñooy sibiir lu gën a metti ci affaire yi ñu ngi ci def suñu kémti lay kattan ah ñu ngi ci def suñu kémti lay kattan mais il faut que tamit ngeen yokk teere doon lu ñeex ak ñaata ñu nekk ci kaso bi ñaata yu Macky Sall jël fàtte ci kaso bi cinq cent plus de cinq cent sénégalais plus de cinquante morts cinq cent et quelques prisonniers politiques des blessés graves tout le monde ñii dañuy dee ñii ñu gaañ ñii ñu dugal ci kaso yi ñi ñu yóbbu ci hôpitalu kaso yi Ousmane Sonko nekk ci kaso bi peuple bi taxaw noppi passivité kenn xamul lan moo ko noppi loolu dañoo xëy rek gis peuple bi noppi nii ñi nekk ci kaso yi ñii ci kaso yi ñi gaañu ñi ngi faju ci hôpitalu kaso bi ñii rey nañ leen mais bi nee na tekk kenn xamul lan la bu ko ko xam na ma wax lan moo waral passivité bi jamono jii lan la lu xew lan la lu waral ñu xëy rek ne teg mel ni dara amul lu ko waral dama ci kenn jàppale ma xam su bugg naa ko xam donc gars yi yii yëpp ñu koy yor original yi jàpp nañ mën ci jàppale yii yëpp soxla nañ ko identification yi ah parce que am na ñu yore vidéo original yi gis nga kii soxla nañ ko lii soxla nañ ko original bi vidéo original bu leer nañ soxla naa ko identification kan la kii kan la kii kan la fan lañ ko jamee kii kan la le kañ kañ la fan la kan la dañ ko soxla ok sama gars kii dañ ko soxla kii bëgg nañ xam kan la fan la naka la nan la où quand comment kii c'est qui ça s'est passé où quand comment kese rek laa soxla original vidéo point amul leneen soxla nañ ko bii gis ngeen soxla nañ ko fii lañ ko dóor bal gémé gémmiñ nga yàqu xool donc soxla nañ ko lii lépp dañ ko soxla kii kan la fan lañ ko defee lu mel nii si Sénégal où quand comment et c'est qui ñu identifier ko dañ ko soxla gars jàppale leen ñu ci dañ ko soxla jàppale leen ñu vidéo origine dañ ko soxla dañ ko soxla yéen ku ci nekk ak nuñ la mën a def am nga pàppa am nga yaay am ngay mbokk am nga frère am nga sœur bu leen toog fu ngeen toog di dund misérabilité di dund ay crimes yu ñu leen def ak def ko seen mbokk génn leen bu leen ngeen contacter bu leen neexee Juan Branco direct wala ngeen contacter ma sama whatsapp 77 641 53 24 génn leen dañ nekk di xeex te lii yëpp ay éléments la ñuy soxla pour xeexee ko parce que ñi leen def lii dañuy fay par force duñ impunité du fi am duñ leen bàyyi noonu ñu rëccee noonu rey doomu aadama yi gaañ doomu aadama yi rëccee noonu duñ ko def donc on est là tàllal nañ leen loxo den ndimbal na ca fekk loxoy borom jàppale leen ñu jàppale leen ñu dañ ko soxla caaxaane wuñ ko dañ nekk di xeex ñii dañ leen bëgg a traqué topp leen ñii il faut ñoom ñu mujj ci kaso yi il faut ñu dee ci kaso yi donc dañ leen nekk di traqué te ñoom xam nañ ñu moo tax jamono ji dañoo tiit ñoom dañoo nekk di menacé ka wax wax ju bari Juan Branco waxam bariwu ci menacé wul kenn moom ay dossier rek la soxla liggéey kat la ñun fii liggéey lañ xam xamuñu wax Sénégal ñoo xam wax wax menacé kenn mënu lu ñu dara kenn nang noo loolu yow yaay wax mais ñun fii tubaab bi soxlawul loolu xam nga lu mu soxla nee na ay élément la soxla boo demee ci avocat yi ñëw jox leen dañ naan kan kii kan la nga ne kii lii la tudd fan la dëkk fii la dëkk fan la demoon di tel kii ban date la tel ok d'accord ñu identifier ku ci nekk day am identification ci ordinateur bi photo yi tag tur lii la tur loolu bu ñu ko yóbbee CPI day yomb ci ñoom dañuy cliquer rek xool kii fii lañ ko jam bal bi mi ngi nii trouvé génn mi ngi tudd tel mi ngi dëkk tel fii la newoon loolu day yomb bu boobaa ay preuve la tubaab bi soxla tubaab bi moom soxlawul wax ju baree que menacé waate mënuluñ ma dara na non loolu Sénégal la yem parce que amul justice ñoom ñoo fa ne di menacé moom juge boobu moom lépp jënd lépp mais fii mënuñu jënd kenn fii dafa am ay droits humains kenn du jàpp nit di ko rayee nii kenn du jàpp ni di ko def comme xar di ko tëral di rendi di ko tiire ay bazooka ak ay ay kalachnikov dem tëdd sa kër nalaw tëddee sab jeeg loolu amul fii donc ngeen jàppale ñu si loolu sama gars yi kii kii kan la jàppale leen ñu si jàppale leen ñu ci waaw dañ soxla vidéo bii kii kan la kii ñi rey kan la fan la nan nuñ ko reyee ñun xam nañ bal la fuñ ko reyee fan la nan la naka la même bu ñu amee certificat de décès beeg tout danañ ko nañu arrangé mais de toute façon soxla nañ tur soxla nañ sant soxla nañ xam kan la fan la naka la ak nan la demee où quand comment qui où quand comment qui où quand comment point yëpp ñu ngi ko yore yor naa ko nag mais dañoo soxla original yi original loolu moo tax ma indil leen ko keneen a ngi nit ñi tiire bal ci bopp mu sedd guy donc kii tamit soxla nañ ko ou quand comment kii comme nu ma leen ko waxee soxla nañ ko donc ñii ñoo ñëw ñu ay bal fadal rey ñu nii dem seen yoon dem di time seen jabar yi di time seen caga yi di dugg ci commissariat yi di génn ak ay ànd ak ay nervi ngeen foog ni lii dinañ dinañ ko bàyyee noonu jamais jamais jamais. Ah, ah, lii lépp am nañ ko lépp man jox naa ko samay avocat yi ñu constitué fii jox naa leen ko mais dañ ma wax ne ma dem indi identif seen identification mais maa ngi junni junni vidéo fii yoo xam ne yëpp naa ko fii. Isa Ziguinchor Isa Ziguinchor ba reer ba reer Ilela Ilela Ilela ba reer Ilela Ilela ba reer ba reer ba reer ba reer kaale kaale Ilela Ilela Ilela donc vidéo yëpp yor naa ko mais dama bëgg ay original vidéo tout dañ ko soxla dañ ko soxla dañ ci nekk di ko liggéey ak boromi xam-xam ñi xam ñu màcc mun junni seen ministres yi bandi bandi lu foofu buñ ñëwee fii ci ñuy sukk ñooñu la ñu koy jox ñu nekk ci baro bi nekk ci kaw formé nañ ay constitué nañ ay pôle d'avocat international yu taxaw sax donc jox lépp man tam jox naa leen ko mais ñu ngi may identification lañ ma laaj pour ku nekk identifier les tout lépp day dem CPI incha allah ñii duñu rëcc moo tax seen mënatuñ nalaw ñoom duñu rëcc mënuñu fexe fexe fexe ba rëcc c'est impossible mënuñu rëcc mënuñu rëcc donc loolu soxla nañ ko gars yi képp ku ci kii rek nga jàppale ma ci 77 641 53 24 77 641 vingt 24 voilà donc euh, voilà ñu ngi genre yëpp leen wax ni gars yi ki dogal lii ki rey nit yi suba lay ñëw Paris Sénégal yëpp ñu ngi toog nag adduna yëpp ñu ngi toog braqué seen bët Paris ñu ngi xaar waa Paris nan la ñuy teeroo assassin bi nan la ñuy teeroo criminel bi nan la ñuy teeroo reykatu nit bi waaye ñii moom ñu def lii c'est payé par la force doole mbaam donc encore lu ma koy mooy euh, ki ma leen doon wax rek euh, ah Touba Touba dafa am wa APR comme nu ma leen ko waxee woon hmm, Astou Gawane Gaye xam nga waxoon naa ne Astou Gawane Gaye caga bu nekk Touba bu bona bona bon doon wër ci média yooyu mooy cagawu Antoine ñàkk jom bi ma leen wax ni Antoine saa yi demee Touba moom ca caga ji lay dem mooy Astou Gawane Gaye caga ju bon la bu Antoine financé ba ubbi ko benn magasin bu mag waxoon naa leen ko donc magasin baa ngi nii Astou Gawane Gaye magasin baa ngi nii gaawaan électronique mi ngi nii jàngul nag xëyut gontuut magasin bii la ko Antoine ñàkk jom ministre de l'intérieur ubbil ca Touba mooy cagaam boobu astu gaawaan gay ki ma leen wonoon muy taxawaale ko wëndaalu ci média yi di feneka kàcc ñëpp tëj ñu jàpp ñëpp tuubaa ak mbàkke astu gaawaan gay moo tànn ay nitam ay nit cible leen jox leen police bi police bi dem jàpp leen defuñu yëguñu tinnuñu donc magasin bi kii nga xam ni seen ministre de l'intérieur moo sàcc alal gi moo ko ubbil magasin bi ca ab cagala bu tudd astu gaawaan gay waxoon naa leen ko wonoon naa leen fi astu gaawaan gay donc mun naa leen ko mun naa leen ko wanaan comme bu dee da ngeen di fàtte mais waroon naa leen Astou Gawane Gaye kii mooy Astou Gawane Gaye xool leen ko muy comporté woo sax ngeen xam ni kii du waa Touba Touba la mais euh, Touba nit jigéen du fa nekk di solo nii kii mooy Astou Gawane Gaye kii mooy caga Antoine ñàkk jom ci caga Antoine ñàkk jom yi la bokk Touba la dëkk kii jàngut amul benn entrée sax amu ko baayam yorut yaayam yorut judd moo ko booleeg Touba ay mag gis ngeen magasin bu mu yor Antoine ñakk jom mokku bil bu demee Touba fii lay ci kii lay nekk di fa wurang-wang astu gaawan gay gii di wër média yi di fenek a kàcc ne représentant APR la ci Touba léegi muy astu gaawan gay caga bu mag a mag a mag sax xam ngeen ni kii nitu Touba nitu Touba day muuru nitu Touba day def nii sëriñ Touba Serigne Touba xam nga nit ki kii bokk na du du daray du taalibe du daray Serigne Touba kii def lii kii kii caga ji dëkk ko boole Touba bokkul daraay Touba kii dara amul lenn lu mu def lu koy Serigne Touba di sant doxul ci daraay Serigne Touba ab la cagala bu Antoine di Wurang Wang point léegi nag gis nga kii dinaa leen tegal ay audio kii manipulation bi amoon ngeen koy dégg Touba kii moo ko waral comme APR xam nañ ni mënuñu gagné Touba mosuñu gagné Touba ñu jéem a salteel lu bëri am Touba waa APR la ñoo taal Touba Pastef de déggu leen baax waa APR ci boppam ñoo ñoom ak Astou Gawane ñoo taal Touba toj Touba toj oto ya yàq pour sëriñ bi interdir fa ay politique ak mbir du waa APR astu gaawan kay ak gàngam la ba pare def loolu jiiñ ko ay nitu Pastef ak nitu yeewi askan wi ne ñoom ñoo ko def police ak gendre dem jàpp ay nitu Pastef ak nitu yeewi askan wi dóor leen ci kaso bi te astu gaawan kay ak ay élément am le Antoine ñàkk jom jox xaalis bu bari comme ni ko defee ñu taal Touba parce que xam nañ ni Touba musuñu koo gañee bastion la boo xam ne dañ ko mus a ñàkk ñu def loolu donc Astou Gawane Gaye moo taal lépp lu am Touba luy tàkk-tàkk Astou Gawane Gaye moo ko taal ak ay nitam lépp lu am toj-toj Astou Gawane Gaye la ak ay nitam ñoo ko toj ba pare dem fenal ñeneen ñu police ak gendarmerie comme ñoo ñàkk jom gis nañ leen seeni chef ñu teg leen ñu doon ay marionnette ñu leen di commandé donc Astou Gawane Gaye yónnee commissaire yeeg commandant yi ñu dem jàpp ji waa Pastef yeeg waa Yewwi Askan Wi nga xam ne kii n'ont absolument rien à voir des cas lépp lu Touba Astou Gawane Gaye la. léegi bu mu Astou Gawane defee loolu ànd ak collectif am ñu dem seeti Serigne taxa léegi di wax di fenn fa di wax ne ñoom sëñ Mountakha na interdire politique Touba parce que waa Pastef ñoo taal Touba ñoo yàq Touba ñoo fa def seeni kaas kenn ne sëriñ bi interdire na politique interdire na sax ay élection te sëriñ bi interdirul ay élection donc ñoom seen i pexe mooy taal ko def lu nga xam ni Touba dootul amati dootul nekk dootul amati ay euh, euh, comment dirais-je dootul mun dootuñ ba fa mun a euh, voter dootul amati ay électeurs te Touba dafa am doole ci échiquier échiquier politique bi ci élection yi. donc loolu yëpp Astou Gawane Gaye ko def léegi ma tegal leen Astou Gawane Gaye ba mu demee ba gis Khalifa ba pare ak ay gangam euh, li mu doon jéem a joué loolu moo tax musuma cee dugg moo tax gars bu ñu wax naan non Touba dañoo interdit mus sëriñ bi musul xam lan la wax sëriñ Mountakha def leen dem leen jaamu ji yàlla dañ doon fexe pour Touba bañ a amati ay bureau de vote. parce que xam nañ ne Touba lañ fay perte dafa bari mosuñu fa gañe donc ñoom Astou Gawane Gaye dafa taal Touba toj Touba rajaxe ko jiñ ko ñeneen retourné dem ànd ak euh, euh, délégation ñu dem ci Serigne Mountakha di ko gëmloo ni ñee ñoo ko taal pour mu tere ko du amati ay bureau de vote mais bi ba léegi benn wax la la wax dem leen jaamu ji yàlla dem leen jaamu ji yàlla dem leen jaamu ji yàlla ñu ngi def manipulation te sëñ bi waxul ba léegi ne bureau de vote am ñu déglu astu ñoom astu gaawan ba ñu demee ak seen communiqué bu ñu def manipulation bu ñu jéem a def. 21h45 auditeurs yu Mouhalim info la xalif général des Mourides Cheikh Mamadou yàlla na fi yàggal tànn ko biir tey jii ci altine ji fukki fan ak ci weeru juin dalal na ab délégation bàyyi ko ci APR Touba alliance pour la république. délégation la boo xam ne ñi ko composé woon ñooy Moustapha Messere général Diène Guèye Bàcci Soog Pape Niass Moussa Mbaye Pape Maguette Diaw Basirou Diagne. maam Dame Lo ak Astou Gawane Guèye ku tedd ki si ak Astou Gawane Guèye dégg ngeen donc Astou Gawane taal na Touba toj Touba jiñ ko ay ñeneen retourné daw def délégation dem pour gëm gëmloo sëñ bi am ñu toj Touba ñu taal Touba jàpp nañ leen boole naa leen jàpp leen pour interdiral politique fii ci dëkk bi parce que gars yi waa Pastef ak ñoom Ousmane Sonko ñu ngi taal Touba. yéen ñi gis jeu bi mu yóbbu délégation am bu mu demee nag sëñ bi dama leen di expliquer sëñ bi def def na ko dem leen jaamu ji yàlla dem leen jaamu ji yàlla da ngeen bàyyi seen caaxaan yi dem leen jaamu ji yàlla da ngeen bàyyi seen caaxaan ba léegi sëriñ bi génnewul ne ay élection du am Touba moo tax mu musuma cee yëy addu ci parce que boobu maa ngi def samay enquête man lépp lu yëngu rek damay wër samay enquête lépp lu am boo leen seetee bëri na ay mbir yoo xam du ma ci gaaw wax inspecteur laa dem nañ ba ngeen may woowee inspecteur di ma woowee procureur kon dara bu amee da ngeen cee soxla sama gëstu du ma doon ay live yu ñëw rek dara am tëll ma rajax rek ma wax la may wax après suba ñu naan noo kàcc na fen na donc damay jël sama temps di enquête topp filiale bi Astou Gawane Gaye tak kon Astou Gawane Gaye moom la ministre de l'intérieur di wurang wang Astou Gawane Gaye magasin fu mu ne tak jëlal ma ko foto ñu jëlal ma ko foto donc matériel lépp matériel ay lépp matériel damay yor matériel oto astu gaawaan gay baa ngi nii ba oto bi dañ ma koo jëlal oto baa ngi nii donc buñ ma nee bu ma sénégalais yaakaaree daf ma inspecteur ñi naan inspecteur déri ñi naan inspecteur nangam il faut ba ci oto bi dama ko jël kii ma oto astu gaawaan gay gis ngeen 4x4 bu tooy bii xëyut ja amul sax ba entrée en sixième nag astu gaawaan gay jàngut duule ki kàcc kii Antoine ñàkk joo ma ko jox oto bi magasin baa ngi nii ma ne jëlal leen ma dem nañ ma jëlal magasin magasin baa ngi nii électronique gaawaan électronique astu gaawaan gay gaawaan électronique ngand sax bopp koñ bopp koñ donc comme sénégalais dañ maa wóolu yaakaar ma du ci yàkkamti astu gaawaan gay ngi nii nag monté vidéo moom ak ku koy wutang wang muy Antoine ñàkk jom astu gaawaan gay ngi nii de caga ju mag bi kan la fa def ku koy wudang wang Antoine ñàkk jom mi ngi nii de deful Macky Sall def kenn de Antoine ñàkk jom la fa def man du waxantu mi ngi ne gisee waxantu man duma waxantu fu ma laal day metti fu ma laal day metti donc bu ma leen waxee Astou Gawane Gaye la Tony di wuraan wang topp naa ko di ko topp di ko topp ba dem lokk ci vidéo bi nga xam ne gis naa ko moom mu teg Tony montage Toneem di di di di moo ci kay wuraan wang di nekk Touba Tony ngi nii moom moo ko monté vidéo bi ma toppaat encore di enquête di enquête enquête pour ba xam Touba la na fa am tout moo tax fu ma laal rek day metti fu ma laal day metti parce que dama leen di xam du ma waxantu xam nga nit boo ko fenelee mun na ko bañ a yëngal mais nit boo waxee wax ba laal ci dëkk bi bu fekkee taat yi daa am picc nga ne ko xam naa la bu baax même sa taat bi sa po sa kàpp taat droite bi am na picc xam <laughs> nga du nalaw xanaa nan la def ba xam sama kàpp bi ne dafa picc est-ce que sama gel bi waxu ko ko est-ce que bu ma defee taatu leen kay wax ko donc man ñooy laay def man <laughs> man damay def génn ne sa sa dambal bi sa dambal gauche bi moo ëpp sa dambal droite bi comme que tey mën nga gis tey nga ma dem ci ki nga xam mooy Tony Antoine ñàkk jom ne ko sa dambal gauche bi moo gën a rëy sa dambal droite bi. te moom mu toog xool daf taatu na xool ne c'est vrai mais kii na la dafa xam sama dambal gauche moo loolu moo tax man lu may wax da leen di metti amul lu may wax lu leen dul metti parce que <laughs> fu may laal moo metti te ay waxantu fu ma laal day metti day day loolu lépp nag enquete moo koy def temps temps temps ku lay wax moom sa sa tuun bi sa tuun gi am na picc sa dambal bi bii moo ëpp bii sa coq yi doo ko wat sa kii sa poqotaan yi mu xasawe di la wax a intérieur kooku moom <laughs> da nga koy moytu parce que da naan kii dëmm la donc astu gaawante wan naa leen otom bi bu ko Antoine jox wan naa leen vidéo bu mu monté moom ak Antoine wan naa leen tamit euh, kii bi léegi wan naa leen tamit li nga xam ne moom mooy euh, magasin électronique bi gaawaan électronique ca Touba adresse bi jox jox naa leen ko euh, donc léegi ñu avancé manipulation bu Astu Gaawan def gay ak ay délégation di foowee sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàlla lokk yokk leeram di foowee sëñ Muntaxa Mbàkke manque de respect génn sax di ko fenal te deful ñu ko tinut ñu koy sosal bugg ndax ay xool lu ñu def ba nga xam Touba dootul amati bureau de vote xanaa Touba bokkul Sénégal day am bureau de vote sëñ bi du tere loolu sëñ bi il est très démocratique très démocrate très démocrate sëñ bi yàlla may na ko du ay xale ñoo ñëw ko manipuler sëñ bi ay xale di nga ko manipuler mukk léegi ñu déglu manipulation wu Astou Gawane Ngaye ak délégation am ba ñu def fukk fan ak ñaar ci weeru juin dalal na ab délégation bàyyi ko ci APR Touba alliance pour la république délégation la boo xam naa ñi ko composé woon ñooy Moustapha Messere général Diène Guèye Bàcci Soog Pape Niass Moussa Mbaye Pape Maguette Diaw Basirou Diagne Mame Dame loo ak Astou Gawane Ngaye ku tedd ki Cheikh Amadou Mountakha nag mi ngi leen dalal ci këram gi nekk ci Darul Minan ñoom république ñoom républicain yi dañoo ñëwoon ngir xamal ko tedd ka Cheikh Mamadou Mountakha taxawaay yu am solo yi nga xam ne kilifa réew mi son excellence président Macky Sall ànd ak jëwriñam ji nañ ko ñeent dëkk bu sell bi ne nañ ne sax waa Touba war nañu leen a sant ñaanal leen ndax kat ay nit ñoo xam ne seen i rëbtul dara ñoo bëggoon a amal ay mbiru doy waar fii ci réew ci dëkk bu sell bii di Touba. dégg ngeen te lépp manipulation astukaan ngay ak gàngam lañ dañoo décrire comme quoi que am na yeneen ay forces spéciale ak en complicité avec Antoine ñàkk jom et Macky Sall que am na ay forces spéciales yu duggoon Touba pour taal Touba te lépp ñoom la ñoo taal ñoo boyal ñoo lakk jiñ ko ñeneen ñëwaat di ko fen sëñ bi ñu dem jaara ko nag ci daal taal lenn ci kër yi personnalité politique yoo xam ne dañoo jege ak régime bi te loolu nag la koy findi daal mooy lu baree bari ci ay cocktail molotov yoo xam ne teg nañ ko loxo ak itam ay arme balance ak ay cocktail molotov moom yomb na ñu defar seen cocktail wut seen butéel yu bëri comme yor nañ xaalis def ca sa cocktail molotov jiñ ko kenn ne kii moo yor cocktail molotov ya te kooku gisuñu ko cocktail molotov indi mbir yoo xam ne daal jàpp nañ ko lenn ci këri manifestant yi ñu jàpp te police gis ko jamono gi leen di jàpp. donc ñooñu ñëpp Astou Gawane Gaye moo leen fenal taaluñu lakkuñu nekkuñu demuñu Astou Gawane moo leen fenal jël ay nit yu mu xàmmee identifier leen ñu bokk ci ab Pastef ak Yewwi Askan Wi mu def li muy def identifier leen am ñoo xam ne sax nee na dañ doon préparer dur ay cocktail moom Astou Gawane Gaye yëg na ko ba boole leen police ba police jàppale te dara amu ci te ñoom jàpp nañ leen. ñu dem mais nag comme ñoom ñoo aaye jamono jii seen nguur la kuñ neex jàpp kuñ neex fenal kuñ neex sosal mais léegi mu jeex dans six mois incha allah wala huit mois maximum jàpp na kon daal taxawaay yu am solo yooyu euh, waa Touba war na leen koy sant euh, gërëm leen ci ñu ñëwoon nag donc xamal ko tëdd Cheikh Amadou Mountakha ñoom itam bokk na itam leen taxoon a jóg daal mooy xamal ko tëdd daal ne fat nañu yéenee wàccu ndigal li nga xam ne daal dina koy digle fan yi te mooy daal lépp luy ñeel yëngu-yëngu politique na ko ci dëkk bi ba sax nag jël ndigal daal koy dénk nga xam ne ñooy Baye Fall ñoom ñi nag kon daal bokk ci APR Touba daal ñëw xamal ko tëdd daal na ko càkkuteef loolu yi moom ñun daañu ci wàccoo daañu ko def nanga ko euh, bëggee lépp lu dégg ngeen ñu fexe ba dugal Touba taal lakk retourné dem ci sëñ bi ne sëñ bi ñu ngi lay sant sax li nga tere politique fii parce que ñoom amuñu fa dara gañe fa dara amuñu fa benn point donc buñ sañoon Touba éliminé wu ci politique du laal du politique ñoom ñu mën a ne kon nag fii comme fii dañu fi doon dóor la lamentablement dañu fi bàcc ba ñuy ba ñuy nàcc donc fii nañ fexe ba taal ko lakk ko wala boyal ba sëñ bi interdire ko fi dinañ arrangé ñu am benn point bu ñu gañ donc ñoom loolu lañ dox moo tax mu ne ñu ne ñu ne sant nañ li sëñ bi digle ñu bàyyi politique Touba bañ ko fa defati bañ na sant nañ ko buñ fa buñ fa doon gañe duñ ko def mais gis nga donc comme dañu leen fee gañe ñu fexe manipuler def loo xam ne ba Touba ñu mun a sëñ bi mun a interdire politique ak lépp lu ci jëm bay ba dem nañ ba ci biir sax naan dañ fa interdire sax élection yi te sëñ bi waxul loolu dafa génn fenal sëñ bi. mooy xamal ko tëdd ki daal ne fat nañu yéene wàccu ndigal xam ne daal dina koy digle fan yi te mooy daal lépp luy ñeel yëngu-yëngu politique aaya na ko ci dëkk bi ba sax nag jël ndigal daal koy dénk ñoom ñi kon daal bokk ci APR Touba daal ñëw ko te daal na ko càkkuteef ko def nanga ko ah, bëggee lépp luy ah, ko tàmbalee tey moom doo leen ci benn yoon ñaan itam ku teri sama mu taxaa itam mu ñaan am ci réewum Sénégal ginnaaw nag bi ñu waxee ku teri sama du mu taxaa loolu leen taxawoon a jug ñoom délégation boobu ku rafetlu nag seen ay euh, euh, tànk waaye tam nag wuy si gi ñu ko wuy si li nga xam ne daal euh, woote na ko foofee nag fooy leen xamal daal ne nag wat moom dana am ci dëkk bi saa yi ñu ko tollee daal daa def lépp loo xam ne daal war na ca ngir nag nit ñi mën a amal seen devoir citoyen donc dégg ngeen sëñ bi nee na vote day am Touba vote day am Touba te ñoom dañoo génn waa paper di gërëm nit yi comme quoi que vote sax du fa am vote day am Touba ndax sëñ bi ñaar la wax daf leen ne leen waaw lépp baax na dem leen jaamu ji yàlla fii moom ay élection dina fi am dem leen dem leen jaamu ji yàlla bëgg nekk sëñ bi jege sëñ bi ñoo ma ne sëñ bi nee na leen ñoom ñëpp assisté nañ ko dem leen ngeen jaamu ji yàlla bàyyi leen seen caaxaan yi dem leen jaamu ji yàlla ñetti yoon ne leen moom daf fi am citoyen dañuy accomplir seen seen devoir de citoyen fii ci Touba incha allah donc manipulation boobu yëpp délégation boobu yëpp te ñoo xam tekkuñ dara dem ci délégation créer seen délégation dem fa du Antoine ñàkk jom du Macky Sall kon nga xam ne caaxaani kese la ay taxawaaru kat bi caga mandikat yi nga xam ni ci baaru kalandoo yi nekk euh, Mbàkke la ñu nekk di mandeka naan sàngara ak caga yu mel ne asugaawaan kay nekk ci kalandoo yi ak ci mag yi ñooñu ñoo dajaloo ne dañuy dem naan dañuy gis si sëñ bi moo sëñ bi moom baatin xam na xam na wax tontu na leen ni fii day am élection mu seen manipulation yëpp bu weesoo fii élection dina fi am jàmm dina fi am te moom xam na lépp ni ñoom ngay gàngoor am ñoo fa taal ñu dem citoyen waaye nag day ànd nag ak bàyyi xel goo xam ne daal danañ ko def ndax dëkk bu Serigne Touba daal moom na leen ko li ko fi yitteel rek daal mooy sàmm worma ji ak sàmm kaaraange. ñu ah. moom dana am ci dëkk bi saa ko tollee daal daa ngi def lépp loo xam ne daal war na ca ngir nag nit ñi mën a amal waaye nag ànd nag ak bàyyi xel goo xam ne daal danañ ko def ndax dëkk bu Serigne Touba daal moom ku tedd ki xamal na leen ko daal ne moom li ko fi yitteel rek daal mooy sàmm worma ji ak sàmm kaaraange gi loolu rek moo waral mu jël décision yi mel waaye daal xamal na leen nag moom wut moom saa yu ci àggee rek dana am waaye nag day nekk loo xam ne dañ koy teg kii daal ah, teg benn comité dafay boo xam daal mooy bàyyi xel nit ñi ngir ñu sàmmoo ak war may dëkk bi. kon donc ñoom asukaan kay seen pexe yëpp gannaaw buñ sacrifié ay doomu aadama comme nu ko ay Anita Diop di defee fenal ay nit sosal ay nit wut seen i cocktail molotov créé seen affaire jàppalu ay nit ñu bëriñ ci kaso bi te xamuñ sax leen fu indi. comprendre nuñ dara ndax ay nit yu leen fenal ak sosal ci koñ yi as gaawaan gay fenal na képp ak gay délégation bi ku nekk Touba ak Mbacké ba tëj lu leen taal Touba créé fa affaire yëpp mais teewul élection dina am ca Touba incha allah léegi ñu continuer léegi dafa am beneen problème bu ci am asu gaawoon gay ak gàngooram dañoo fekk junior doomu Cicelo agressé ko gaañ ko jamono ji leen di wax ay nii jàpp leen nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii ca Touba astu gaawaan jàpp nañ ko parce que kii nga xam ne mooy junior ak ñooñu dafa am dañ dañ dañ dañ doon xeex dañ euh, mooy doomu Moustapha Cissé Lo yi dañ doon xeex ak gars yi ñoom Astou Gawane Gaye gaañ leen ñoom ñu yóbbu certificat médical nii nii nii may waxe yow nii tey bu dee Antoine ñàkk jom wootewul foofu ñu libéré Astou Gawane Gaye nii nii Astou Gawane Gaye mi ngi ci loxo policiers yi jàpp nañ ko ndax euh, ki nga xam ne mooy junior loo doomu Cissé Lo junior Cissé yóbbu nañ fa euh, certificat médical téye nañ ko jamono ji cagaay Antoine ñàkk jom mi ngi ci loxoy commandant bi jamono ji may wax ak yéen nii voilà normalement fa lay fanaan donc bu asukaawaan ngay génnee suba parce que am na certificat médical comme ni ñu jàppee ñeneen ngeen xam ni kon ki nga xam ni mooy Antoine ñàkk jom woote na fa ñu libéré ko ci injustice waaw ñu dem histoire bi nañu Cissé Lo woo nañu aussi ki nga xam ne moom moo porté plafa mesere gannaaw gi nag bi ñu ko bi ñu déggee coow li li li xew ay xibaar yoo xam ne jot nañ ko mooy dañoo jàppante ñoom ñaar ca vingt mu am xeex ba mbir mi dem fële nga xam ne moom mooy ci kanamu ñu porté plainte maanaam euh, na plainte histoire bi. bi nga xamante ne. dégg Astou Gawane histoire bi nii tey lañ jàpp Astou Gawane Gaye moom profité na ñoom ñoo gaañ euh, euh, clan ñoom junior Cissé Lo ba pare wëlbatiku ndax comme ni ñuy def manipulation yi dem wuti ji seen certificat médical